waaw salaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di di leen jaar di jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax quoi alors dama doon ñëw rek euh, en tant que euh, voilà euh, donc quelqu'un qui évolue dans le monde de la culture ak de la joxe un peu suma contribution suma modeste contribution ah très nag moom lay joxe quoi donc ci mbir mi nga xamante ni coow laa ngi ne kur quoi ah, dara jaru ko fi maanaam mooy li jëm ci koppar yi nga xam ne moom lañ jox euh, moom lañ nar a séddale musicien wu Sénégal yi waaw dama lay laajte ndax dañu nekkoon ci grand prix wala dafa am ay distinction wala ay raaya wala prix bu ñu joxe quoi ba ñuy xool ay ordre de mérite ak ordre d'ancienneté ak yooyu la parce que lii dama jaax je pose cette question parce que tout simplement j'entends partout dire catégorisation catégorisation mais je voudrais bien savoir quoi parce que li ñuy wax nii aide la aide mooy ndimbal ndimbal kañ mooy saay jàppandil ci lii parce que li ngay dund métti na lu ñu njëkk def sax mooy massawu tous les musiciens du Sénégal parce que yéen vous êtes les plus impactés ci secteur yëpp ba pare en même temps génn musiciens yi génn guñ ci parce que gis nga Sénégal levé nañu lépp ñeneen secteur yëpp ñu ngi dem di reprendre seen activité mais musiciens yi salle yeeg yooyu kenn ubbee ko ko donc joué guñu donc daf quatre mois de yi continuer et pourtant les charges sont là donc dañ leen di masawu mais ngir yàlla warul sóor yi je pense que nañu def partage équitable jël xaalis bi séddale ko ku nekk am li nga war a am ñëpp tolloo moi je pense que loolu la xel gën a mun a nangu et d'ailleurs ñi nga xam ne ils se de grands musiciens respect à vous hein beaucoup de respect de très grands musiciens qui ont ñu ngi sur sa scène musicale depuis bu yàgg mais ils ont joué avec tous les ténors ils ont fait des tournées internationales ak yeneen ak yeneen mais ñooñu kañ saa yi dañu war a dimbale euh, ñu nekk ci suuf xale yi ak ñooñu ñuy wax ñeneen ñi dañ leen war a dimbale dañ leen war a jàppale parce que quand avant Covid bi di ñëw ak yeneen yëpp mais. ñee impacté ak yéen ngeen impacté am na loo leen denc tuuti kas néew macha allah peut-être parce que voilà quoi mais yéen da war a dimbale xale mais un musicien qui a sa guitare un musicien qui a sa batterie un musicien qui a son clavier ak ku yore ak yooyu di jouer ak ay jeunes talent kat mais kooku lan la doon dundee semaine bi mu am tel jour jouer ko benn benn endroit dans une salle de spectacle beneen jour mu am leneen ñu ñu fay leen ay cachet moom la ñu dem dundalee seen njaboot. moom la ñu dem yoree seen kër mais loolu nekkatu fi donc je pense que bu dee impacté la ñuy wax xanaa ñooñu nekk ci suuf kañ ñoo gën a sonn ñoo gën a impacté wu parce que les charge ba léegi ñu ngi fii muy ndox courant location ak dundu dundu njaboot bi yëpp a ngi fii te amatuñu benn suuf su source a revenu benn ah xaalis bi ngir yàlla jël leen ko ngeen séddale ko. de manière équitable tous les musiciens am ci suturlu ci parce que lii ñuy nekk ni di am catégorisation ñun ñoo gën a yàgg fii on a fait ceci et cela vraiment ñaa xiiroo ñaa yoo lay andi et le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que dañuy wax un milliard da nga koy dégg-dégg nii ci dégg-dégg bari na mais attends tous les musiciens du Sénégal répertoriés ku si nekk ñu jox la mais saa waay le jeu n'en voudra pas la sandale kon nañ ci manko juboo te def ko partage équitable ah nañu yërëm ñi nga xam ne c'est les jeunes là yoo xam ne ñu ngi musique seen instrument dong la ñu am wala ñii seen baat kese lañ doon am pour jouer dans la semaine nañ leen jàppale dimbale leen ngir yàlla war soli sóoli et puis ñu def partage équitable man je je veux même pas entendre parler sincèrement de catégorisation quoi parce que man pour man loolu c'est même pas bien c'est pas le bon entre nous ah l'union fait la force et puis yi surtout ñu nekk dans les régions je profite de l'occasion pour le demander nañu organiser wu am ay association am ay structure yu ñu bokk xam nga yu ñu liggéey comme ça parce que dans la organisation et méthode comme ça yi bu amatee yàlla nañ ci yàlla musali tout sa leneen ak leneen aussi bu amee tey ci yeneen fànn ñu mën a xam ñan la ñuy dem adressé wu ak ils sont combien et tout et puis voilà ñi ngi wax sax mais xaaral ba ñu xool nombre de musiciens à travers tout le Sénégal donc allons-y doucement allons-y tranquillement mbokk yi ngeen bokk lépp partage ko équitablement en tout cas c'est mon avis quoi c'est mon avis et puis euh, franchement ñu ngi masawaat tous les musiciens ah gàcce ngalaama ah. impact bi vraiment yéen la gën a sonal ah ba léegi facture yaa ngi ñëw ba léegi location bi day taxaw leneen ak leneen day taxaw yàlla leen yàlla gën a jàppale jàppale ñëpp si Sénégal ñu fàtte nag euh, lenn buñ ko fàtte mooy ñu on vit nous vivons avec le le le coronavirus yàlla nañ si yàlla musal ko ci yàlla nañu yàlla mu def mu abal ñu ko quoi Covid 19 ah donc nañ def opération moytu respectons les règles barrières euh, yàlla na yàlla. Euh, euh, jëlee ko fi ak jàmm yàlla sauver Sénégal sauver le monde euh, tamit musiciens yi tamit yàlla leen yàlla defal jàmm ba ngeen mën a ñëw reprendre seen ay activités comme ñëpp maa leen di gërëm di leen sant bu baax a baax yàlla na Sénégal am jàmm yàlla na Sénégal également génn ci situation bi yëpp ak jàmm ak salaam salaamaaleykum jërë ngeen jëf et merci de votre aimable attention c'était juste une toute petite contribution merci et